C'est bon. Vos micros sont ouverts. Ouais. C'est bon. Voilà, bon. bon, bon C'est bon, bon C'est bon, C'est bon. bon bon. bon. c'est bon. c'est bon. c'est bon. Ah, c'est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 yii ñu koy feete am na fii ci Casamance diggante Ziguinchor ak Bignona ñaari famille yoo xam ne ñu ngi naqar te dara tegu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 bu ñu demoon Saalum noonu bu ñu demoon Gànjool ma leen fa ëpp mbokk bu ñu demoon Waalo ma leen fa ëpp mbokk parce que yàllaa ma may loolu ci ñi mu boole ci samay parents ba ma bokk fépp kon man mënuma am xalaat luy xaajale Sénégal waaye bu ma amee sañ-sañu taxaw fii Casamance wax li ma wax te doo dégg benn voix autorisée bu Casamance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 L'année passée 2021 doonuma maire euh amna maire bi fi mënul won fay dem ci un acteur politique mu fay bëgg ma xam ngeen ni enseignement supérieur du ci compétence mairie mairie préscolaire ak élémentaire compétence donc mairie amul sax obligation pour defal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

Je suis menacé je ci électeur ba tax may def dul tant que je serai maire de Zigenchon les procédures seront strictement respectées Je vais lancer un appel aux Sénégalais Sénégalais de tous bords parce que le Sénégal est en danger il faut que nous nous xam le Sénégal est en danger C'est li andi danger bi mooy suis ñu a une base équilibre social depuis 12 ans depuis 10 ans maintenant c'est compromis parce que du Sénégal ñu instrumentaliser comme ça discours pour xam région le Sénégal est en danger parce que am président boo constitution mandat un